jaale kilifa diine yi di ko jaale askanu Sénégal gépp ndax imam Alioune Badara Ndao Sénégal gépp a ko bokk umma islam bi tamit ñëpp a ko bokk ngir taxawaayam ngir njariñam njariñam lu yaatu imam Alioune Badara ndaw nag ñun alhamdulilahi rabil alamin la wax ndax dafa wàcc wàcc na li ko yàlla dimbalee bokk na ci xamoon na li tax yàlla sàkk ko li ko yàlla dimbalee yi tamit bokk na ci xamoon na li tax yàlla bàyyi ko ci kaw suuf si imaam ku yàlla déggloo woon jamono la déggloo ko diine dundam gépp mu jeexal ko ci lu baax jëf ju baax ak jëf yiw danaa ci wax ñaari seede rekk ngir ñu xamni imam aline badar ndaw benen dimension la woon benn bi ci ñëk moy 2013 2014 bi ñuy def tournée ci lu jëlé laïcité ci réew mi di def pétition bi ñu yegsee état bu kaolak yii boba imam aline badar ndaw fekk na mi ngi yor benn Mercedes bi ñuy wax Mercedes bawol bawol adduna sépp xam nañ ni ku ñàkk jot la adduna sépp seere nañ ni am na lu mu xëy def ko waaye diirub li ma nekk kaw Kaolack imam alin Badara ndaw 8 heures dana ko fekk mu gaare taxaw di ma xaar ci fi ma daloon ñu nekk di dox ba 22 heures léeg-léeg ba min wi mu ànd ak man soog a dellusiwaat ci këram gi loolu nag yitte gu ko jiine yitte loon ak lislaam ak lu baax rek a ko waraloon beneen bi ci des am na mbokk mu ko wax léegi ci xam gum xamoon li tax ñu néew doole mooy teqale gi ñu bëgg a teqale mu amoon ci yëg-yëg lool ñu am yuñ ci waxtaane keroog guddi laa ko woo ni ko suba de dañoo war a dem yendu ji ak sëñ Muntaxa guddi ba ñu xëyee ñun ñoo ko fekk Touba mu toog di ñu xaar ni ma sa kàddu su ma ko déggee du ma laaj lan la ñuy dox xam naa ni ci lu baax rek la jëm wallaahi alazim wallaahi alazim bi ñu demee Touba lañ ko fekk ñu jaar ci kër sëñ Touba gi dajeeg sëñ Ahmadou Badawi ak kilifa yu bari jóge fa dem ci sëñ Abdou Samad yendu fa bañ fa noppee soog a dem ci sëñ Muntaxa waxtaaneek moom lañ bëgg a waxtaaneek moom li ma bëgg a wax daal mooy lislaam bi ñàkk na kenn gu rëy li ma bëgg a wax mooy réew mi ñàkk nañ kenn gu rëy imaam Alioune Badara Ndao la mu waroon a def def na ko yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeel bu ko cat jiitu ci bàmmeel te borom bi barkeel lépp loo xam ni tegoon na ci loxo ak tàmbaliwoon na ko te gën a yaatal te mott li ay mbiram imaam ndaw mën nañuy wax ci moom fii ba ëllëg te du jeex te luñ ci wax dëgg la ndax lu ñu jëflanteeg moom la waaye woyaf ga ñeewante ge bëgg lu baax le ak yërmande gi mu amoon ci mbindeef yi foo ko takk weesu na ko te loolu ñi may dégg xam nañ loolu kon ñoo ngi koy ñaanal yàlla boroom bi euh, fay ko ngën gi pay la nga xam ni moom la dëloon gaa yi boppam ya mu féetale boppam yàlla na ko ca tibbal lu kawe njortam bi ci euh, daraja yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoo ngi dellu di ko jaale ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa noo ngi jaal mbokki jullit yëpp di leen massawu ci turu jamiyatul birri wal ihsan Canaba Seck di njabootu Oustaz Alioune Guèye ci wàllu jàng ak jàngale Imam Alioune Badara Ndaw di woon kenn ci ñun ci daan ñu jàppale si di comprendre woon li fi indi tey ji suba gis nañ ci vidéo yi mu gis mu ne liggéey bii mu nekk bokk na ci li gën a néew lu ko bi jaral mooy bakkenam ak alalam loolu mooy inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن لن نيختي لا يجي موي كم كون جاينتل كم دون سامونتك موم كول ري موكو داك سام كول ري ومن اوفى بعهده من الله كول ري جيم دون سام ديغنت ماك بروامم با بروامم لاج كو بكنم اك علالم مو جارال كو لودول لولا لودول لولا بروامم جارال كوكو كول ري غوغي بروامم موك غن مانا سام dina ko fekk incha allahu ci biir bàmmeel la mu jëriñ ko jamiyatu bir al birri wal ihsan bu cana ba sekk ñoo ñëwoon ci njiital imaam Mamar Mbengue di jottali seen jaal ñu jox barakaatu man de su ma sañoon duñ ma jox kàddu ma yomb naa di ñaanal ko rek borom war nañ cee mën a seede kenn ci famille bi ndax imaam Aliou Ndaw bi muy jógee ndaalaan di jàngi kokki ànd mbay ndaw booba ca laa jógee sama dëkk dem jàng kër papam papam moom la daal alxuraan bi mu dese itam ñoo àndaat dellu kokki kon war naa mën a wax ci moom mais li ma ciy wax li ci nit ñi wax yépp yaakaar naa ne mën na ko mais lenn laa laa laa bëgg baaxee mbokk yi ndax mbaaxu imaam Aliou Ndao dootu ko waaye mi li wax dafa am imaam Aliou ndaw li mu rawee nit ñi mooy moom dafa xamoon Euh, terrain bi nga xamante ne bii ci la ñuy rawante jëm aljana muy xol yi moo tax mu yittewoo woon xolam ba imaam Aliou ndaw amul kenn ku mu ëmbal lenn ci xolam ni mu doon jëflanteeg xale yi noonu la doon jëflanteeg mag ñi ni mu doon jëflantee ak ñii mu jur noonu la doon jëflantee mbooleem euh, ñiy liggéey ci wàllu Sénégal lépp kenn mënta wax ni imaam Aliou Ndao kenn ku ne dafa jàpp na ci moom la bokk kon loolu wax dëgg yàlla dañ ciy woo kilifa yii fi nekk yëpp ndax lii fi am ni tey jii dafa am lu muy jàngal mboolem ni dafa kon ñu ngi sant ñëpp nga ah, maa ngi doon wax ci turu association Rihab pour le développement humain jamiyatu Rihab bi tamit ci njiital imam Alioune Tine ma ngi nii tam ñoom ñëpp teew nañ man nag Oustaz Aliou Ndao doo koy xam en 1974 la may jàng école bu ma mënee jàng alxuraan tey mbaa ma mën a julli yàlla ak moom la ma nekk ak moom kër bàcc sàmm mooy papa yi mooy papa yi soose mii tey di jabaram ah, waaw mu jox ñu doomam nag muy muy Adja Adja yaru yem ci loxo wax dëgg yàlla di jàng alxuraan nga xam ne bàyyam teg na ko ci yoonu lislam ak muslim waaw oustaz Aliou Ndao ku baax la woon waaw ñu koy gën kër yàlla na ko yàlla yërëm te tëjee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu ngi jaale al umma islamiya di jaale mbokk yi sori yi indi suñu njaal nag ci turu président munoon nañoo doyloo sax bu gànjaay wax Ousmane Ndiaye hmm. ndax Gandiaye lañ jógee waaye nag ma bokk ci beneen instance président ñëpp ñëpp te xam ne ñàkk nañ ñàkk nañu jàmbaar ñàkk nañ wëliyu yàlla ñàkk nañ أعوذ بالله السميع العليم من الشان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحسهم وعد عدا وكلهم آتي من كامل فردا والقائل لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه لو الحكم لو الحكم الى والقائل كل من عليها فان ابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والقائل في حق محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين وفي حق أعدائي إنك ميت وإنهم ميتون اشمعنهم من قبل إنكم تختصمون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افمت مت أفهم الخالدون فقال في حق كل نفس جي نفس حية كنا في ذائقة الموت فقال في حقه وفي حق إخوته من الرسل وما محمد إلا رسول إلى آخر الآيات قالوا له جلت من صلى الله عليه وسلم جلت واكر الدوام أو دواري واكر أبجل نيب لين وخ نيب نيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دجيت دجيت نيول نك كلفة ديني في تويب نخمن ما نتي سنغال نك نوي أدنبي بنك جل نيب نك يوسف صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم موت العالم موت العالم بان خم خم ملي كي بودي ادبي بودي والله العظيم ما نكس بدي نتيك موم لي سي مودي رك بني خيخ مان من يقرأ ني خيخ اك نغور جيجين مان لا سامب ما نيك تي ا سيل كومينال بوك بوكو باكو جيجين kon ba ma koy xam ñuy xeex lu mel ni man man ak moom boobu ak léegi yaakaar na boobu li ko manqué fanweeri at bëri na moo ñëw sama kër lépp programme bu mu am ñëw na ñëw ñëw sama kër ma ma jàppale ko ci kon ñàkk nañ tey koo xam ne wallahi jaay jaahada fi sabilillah hatta ataahu al yaqin innahu faqadu al islam wal muslimin kaffa taxamadahu llah bi rahmatihi askanu fasiha jannati inna lillahi wa inna ilayhi rajiun اللهم نسألك يا رب أن تغفر لهذا المجاهد أخينا الإمام علي بدر دو وتبارك يا رب في من ترك من الأولاد والأزواج والأحباء يا رب العالمين اللهم أسكنه في أعلى العليين من جنة الفردوس ما نعم، عبد النبي بلا جال كل الأمة الإسلامية هم الذين فقدوا مجاهدا نادر الوجود لا يجود الزمان بمثله إلا, إلا قليلا فجزاه الله خيرا ورضي عنه ورحمه رحمة واسعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته